di la ziyaar di la wàcce sa wàccuwaay ci nun di bëggee itam sa teewaay ci nun di amit bépp yëg-yëg ci kàddu yi nga rotal rotal ko ci yéene xalifa bi rotal ko ci yéene rakkam yi koy jàppale ci yen bii ko mag ñi yen muy kàddu yu leer jëm ci bëgg-bëggam ci wàccaay yi nu jëm ci guddi yonent bi sallallahu alayhi wa ñu wax la rekk lu mënul ñàkk gannaaw bi ñu nuyoo sëriñ Habib bi doon jotal yóbbante yi mu jotal nun waa comité d'organisation au service du Khalif Koskas. nun la cellule Zawiya Tijaniya bi nga xamante ni moom la dénk lépp lu jëm ci wàllu communication ci taxawaay yi jëm wax la ni rekk boobaak léegi àndandoo nañu ci tegtalam ak yéeneem mu yebal nu man ak sëriñ Habib mi ak sëriñ Moustapha ak comité culturel bi nga xamante ni ñooy gëstu aka a saytu muy le comité scientifique jëm ci xew-xew bi nga xamante ni moo sàkk woon balaa ñëw ñu taamul ko tem mu tànn tem joxe ko mu nekk baat bi yonent bi abdul boppam wax ni bu'istu li utammima makarim al axlaq dañu ma yónni ngir ma mottali jikko càng yi yonentam moom sallallahu alayhi wa sunu maam Seydil Hadj Malick ko tegtal yónneen tamit moom la yàlla wax ni moo ñëw nekk yërmande ci jullit waaye yërmande ci humanité bi yépp yónneen tamit moom la joxeñ loxoom pour mu nekk tegtal bi gën a doomu aadama mën cee natt boppam ci melokaan yi natt boppam ci doxalin yi natt boppam ci lépp loo xamante ni dafa làmb dundu doomu aadama yonent bi est le exemple en tout moom la taamu pour ñu jël ko woowaat mbokki taalibe yi woowaat mbokki jullit yi mboowaat mbokk Sénégal mbokku Afrique ak waa àdduna bi ci boppam ci ñu delluwaat tukki ci dundam tukki ci meloom yu rafet tukki ci li nga xamante ni moo nuy may nu mën doxal dund waaye dund gu teey dund gu amul benn ayib bi ñu demee seeti Pape Serigne Babacar Sy Abdoul Aziz jox na nu ndigal ci nu jël wéyal tànneefu xalifa bi delluwaat ñaan comité bi ñu daje pour xool gëstu yi ci war pour mën ko tegtal nit ñi jëm ci wàccaayu gàmmu gi jëm ci burda almadix bi nga xamante ni moom la Maodo taamu woon bu jotee bu weer wi feeñee ñu doore ko muy melal melokaanu yonent bi ci li gën a yaatu ci melo te gën a rafet ci li gën a tey ñu ngi jëm ci point de presse bi nga xamante ni sunu mbokki xibaarkat yi ñoo ñëw moom xalifa bi ci boppam may nu lu toll ni yabalal nu la pour nga ñëw jëmmal nu pour nga ñëw magal nu pour nga ñëw wane ni yoonu ndaw lu ne mag baax na ca muy sa teewaay bu rafet bi yaag mbokk yu tedd yi sëriñ Moustapha Basam nu àndandoo Abdul Hamid maam Cerno maam Omar Serigne Hassan Serigne Moulay Diop rawatina le maire de Tivaouane El Hadji si ñëw pour rek wan mbokki taalibe yi ni xalifa bi li mu bëgg insha allah fii ci dëkk bi loolu lay am li mu bëggit ci réew mi loolu lay am li mu bëgg ci doxalin wi na mu ko bëggee insha loolu lay am ndax kuy taalibe ubbi nga sa nopp moom rekk ngay dégg li mu joxeñ kon loolu lañuy def ñu doore ko nag ci wàccaay yooyu dellu wanne ni taalibe bokk na ci li koy sagal mooy fu mu déggee baatu kilifaam rekk mu doxal la kilifa ga bëgg bokk na it ci liy tax kilifa ak ñoŋam mu wóor ko ni njabootam lu mu bëgg loola dana ko def ca na mu ko bëggee à bokk na ci liy tax wegeelu kilifa mooy njaboot mel na mu wara a mel na mu war a mel ci jikko na mu war mel ci taxawaay na mu war a mel ci itte kaweel sa itte ba sa kilifa ca biir itte booba boo koy doxal mu xam ni kiikat kat jar na àndandool jar na euh, mën koo désigner mu nekk sa compagnon de lutte te ñoom dañuy xeex pour samp kàddu mag ñi ak seen jëf moom looloo ko fi bàyyi mu ngi fexe kàddu mag ñi di samp jëfu mag ñi di samp seen liggéey di samp kon nun taalibe yi wuy ko rekk moo war moom la woote wooteem boobu incha allah bu ñu demee ba le 14 septembre sëriñ Habib wax na ko jamaatu nuur dana ñëw jox ko li nga xamante ni moom la leen dénkoon ci taxawook taxawaay mu mel ni mu mel ba tey mën naa wax ni kuy taalibi sikki ngaa xool gis bijou bu rafet bi di liggéey bu sotti te rafet te sell muy jumaay Seydil Hadj Malick ci biir programme gàmm gàmmu gi lépp bokk kon ñëpp bàyyi ko xel restitution wu caabi yooyu nag moom la sëriñ Habib di def rek précision pour ñu bañ koo foogee ni dafa ñëw rekk pour julli ko julleegu ko waaye dafay ñëw pour jot caabi yi waxtaan ak njabootam yi mu am taamu nag bés ba mu koy jullee insha yàlla na ko yàlla indi mu fekke ko te dal ko te yàlla gën a dolli wéram nun mbokki taalibe yépp nun mbokki jullit yépp nu àndandoo ci gannaawam ci bëgg-bëggam insha allah ba ca topp nag mooy taamu gi mu taamu joxañ ñu yonent bi pour ñu seetaan ci melokaanam xam na ni pinc mu jag loolaa lay jagal yeneent bi mooy le meilleur exemple en tout kon jag-jagu pénc mu ngi doore ci topp ndigalam topp jàngaleem topp falsafam liggéey teg ko ci ni mu tegtalee liggéey ak itte bu kawe bi mu ko daan defee nga xam ci la woo awliyaa yi ci la woo ñi mu bokkaloon mu di ay saxaabiyum ñun ñëpp nu demaat xoolaat sunu réew ci doxin wi sunu réew ci jëfin wi sunu réew ci lépp loo xamante ni dana ko may koom gën a yaatu waaye dal dal gën a am parce que la mu waxoon innama al umamu bil axlaaqi ma baqiyat fa in zahabat axlaaquhum zahabu nee na mbooleem pinc yi seenug jat jat baax la def seen grandeur ya def seen développement yu sell ya mooy seen melo yu rafet ya su fa melo wu rafet amatul pénc day perte valeur am pénc day perte lépp loo xamante ni moo def màggaayam sunu réew nekk ci jamono boo xamante ni laaj na ñu delloo siwaat sago yi tegtal leen jëm joo xamante ni ba mu dalee di am ci humanité yiw rekk la jox humanité loolu la xalifa bi bëgg pour taalibe yi delluwaat gëstu xam ni nu ngi doxal doxalin woo xamante ni su jéggee boo moytul sunu penc ci ñaaw boo moytul sunu penc ci damm boo moytul sunu penc ci yàqu mu bëgg ñu delluwaat ci melokaan yooya jéexat ca luñ ca war a jéexat te taamu wane ko ci melokaan wi mu ko wane ñaan yàlla ci barkeem ci barke buy juram ya barke maamam ya yàlla na nu yàlla yeggale ci gàmmu sëriñ baa ngi woo ku mën ak ku mënu ña mën teew ñi mënul yéene seen yéene bokk ca tabaarakallaahu tàmmalee ko ci ni ko sëriñ Habib waxe boroom réew ak li mu ëmb ci ay gouvernement ak ministre yi ko séq chef de service yi nga xamante ni ñooy jàppalante ak ministères yi incha allah ñoom it mu ngi leen ci woo ci boobu taxawaay ba ca topp nag te mu bokk ci li nga xamante ni ñun ñëpp war nañ ko bàyyi xel mooy ñëw gi nuy ñëw ak jamono biñ koy ñëwee ak li mu laaj xalifa bi ci teewaayu bay cheikh daan na sàkku ci nit ñi ñuy ñëw ànd ak dal ñëw ànd ak jàmm ñëw ànd ak sellte sellte xalaat waaye sellte yéene waaye sellte def def te mooy laab laabal sunuy bopp ndax li nuy wut si ak fi nu jëm fi loolu la laaj daan na woote itam ni ko sëriñ Habib confirmé ci yóbbante bi mu la jox mooy chauffeur yi transporteur yi ak mbooleem ñiy ñëw moo xam tàmbalee ko ci bicycle muy ñaari roue ba ci eh, quatre roues ba ci jëmmi bus wala car wala daaba bu waay di war xalifa bi ñaan na nu yéwénal warin te bu ñuy ñëw nag mu ànd ak lu mu war a àndal ci daldal ak teey ndax kat li nu bëgg mooy gàmmu zéro accident ni ki nu ko ñaane woon ci màggal gi màggal zéro accident waaye yàlla na nu yàlla may gàmmu gi nu jëm gàmmu zéro accident loolu nag ku ci laaj na sa taxawaay ak sa yéene sa ñaan sa itti ba nga xamante ni danañ mën ñëw ci teey dal ci teey delluwaat ci teey ak jàmm dellu ci jàmm ànd ak jàmm ci yoon wi ba yeggaat ci sunuy kër fekk fa jàmm yàlla na nu ko yàlla boole defal mu ngi baalu àq ci xaw gee guddal ci sa teewaay waaye yaakaar naa ni liggéey bi ni ko koskaas siqi ak préfet ak gouverneur ca Tiwaawan ak Thiès ba ñu àndandoo incha allah ñu ngi jëm ci war a daje au niveau national ñu ngi dellu yóbbante la nun njaboot gi nun mbokki taalibe yi nu ngi wax sunu euh, euh, sunu ngëm-ngëm jëm ci ay yéeneem ne ko nu ngi ci gannaawam di déglu ndigalam di fexe li mu bëgg ñu defal ko ko ba keroog yàlla may ko ca ndam nu duggaale ci ndamam lii daal mooy li mënul woon ñàkk ñu wax ko ñu ngi jéggalu bu baax a baax ci kàddu yi ñuy rotal ci sa teewaay muy gudd walla mu di la tiim waaye nga xam ni liggéey bii yéen ci joxe ndigal ñu di ko doxal ànd kook ay gor ak i boroomi taxawaay muy mbokk yi séq ci koskaas ci cellule ci jamaatu nuur ca eh, beneen dayira bu mu mën a doon ci dawaayir yi ñu àndandoo ca rek wan la ni ñu ngi tënku ci seen gannaaw tey xaar seeni ndigal te ñaan yàlla yàlla nañu ci yàlla boole jàppale wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala